mbokk yi ni Hel xel mana mu nek ci aduna bi mo xam ñi nek ci réew mi wala ñi nek biti réew tay baye xel seen jotaay yu am solo yi ñu ngi leen di assalamu alaykum wa rahmatullah mbokk yi dañu fasiyene dik ak yeen ci benn secret bu am solo di secret wax na mbokk yi dañ koy faral di laaj lu bari ñu secret tabariyanaa bi nga xam ne dafay toj liggéey te boo ko defee képp ku la liggéey mu delluwaat ci kawam muy bo xam ne bu yéeme la bu doy doy waar la day alquran waaye daanaka wax manes naa wax ne sekkare bii moom daanaka xam-xam bu ñuul la waaye sekkare la boo xam ne nii ñu koy waxee incha allah boo ko defee képp ku la liggéey ku mën di doon bu am ndimbal dëgg ah du ko fekk wala ñuy gëna a sori ci secret bi wala ñuy gëna yaatal dañ lay wax yow mi gën ci paas bi bu fekkee ne abonné ko ci chaîne bi ñoo ngi lay wax nga abonné te seen vidéo bi partage ko mu gën a yaat ndax mboolem vidéo yi ni dugal yëpp ay vidéo yi njariñ la te njariñ na moom mu gën a yaatoo ci la gën a wax yow mi nga xam ne da nga bëgg a def lu seet wala nga bëgg a def lu listixaar dañuy def seet à distance dañuy def tamit listixaar à distance moo xam nga nekk ci réew mi wala nga nekk bitim réew ta bëgg ku la defal benn ci ñaar yi mën nga ñu contacter ci numéro yi muy 77 684 28 28 wala nga contacter ñu ci 77 668 28 28 ñaari numéro yëpp ay numéro yu whatsapp lañ mbok yi nga xam ne dañuy tuwa garab yi kàttan yi muy garab yi musaam yi ñu ngi leen di xamal ne garab yi disponible na jamono jii ñu waxee ak képp ku seeti woo rek mën nga ñu nga contacté ci benn ci ñaari numéro yi incha allah rabbi foo man di nekk di nga ci jot ci ni mu gën a mbokk yi xanaa dañuy def fàttali bu gàtt rek ci njariñ yi nga xam ne garab gii di mu xam làmboo na ko muy garab gu bari njariñ lool waaye nag ñu tudd lu a néew rek ci ay njariñam mbokk yi garab gii di mu xam dafay yokk kàttan bu baax a baax a baax garab gi di son dafa yokk maniyo, bu baax a baax mbokk yi garab gi di son dafay dundal wala njaan di ga muy garab go am solo go xamne ku yalla dimbalé ba nga jël ko inshallah di nga xam jar yi ñu la wax ko seto man nga ñu contacté ci benn ci ñaari numéro yi mo xam nga nek ci réew mi wala nga nek bitim réew ko ñu contacté inshallah di ci jot ci nim gëna gaawé mbokk yi secret bi ne indil tay moy secret tabbadiyada abi lahabin wa tabba ma agna anhu maaluhu wa ma kataba sayasla naaran zaata lahabin wa imra'atuhu hamalatan atabi fi jidiha hablun min masadin muy saaru doy doy waar woo xam ne ci toj liggéey ak ku la liggéey mu dell ci kawam lu ko ci gën a gaaw amut tabati daa mbokk yi am na ci benn yoon boo xam ne képp koo xam ne def nga ko boo ko defee téere ba takku ko képp ku la képp ku la doon ku man di doon bu amul ndimbal dëgg mën naa faatu muy saar wu yéeme ci fànn googu waaye yoon wi nga xam ne moom lañ leen ci indil tey mooy yoon wii fexeel ba wut fukki xob ak juróom-ñett maanaam fukki xob yi poftan ak juróom-ñett nga wut ko xob wu si nekk nga bind si tabbat ya waaye nag boo ko bind da nga koy نيغا كجاني من مسد حبل في إيدها حتى بحمالة وأمرته لها بإساءة نار سيصلى وما كذب ماله عنه ما أغناه وطب لها بالأبي يدا طبت نيغا كي بنده بوكو بند نك binde ko bindee nii ba nga xam ne pare na soo ko mënee la nexé xob yi man nga tàngal ndox bam tàng nga jël xob yi def ci wut maanaam tuut suuf soo xam ne ci armeel lu jóge nga fexe ba defaale ko ci ak juróom-ñaari